أعوذ بالله شميع علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi lazi bi niamatihi tattimu saalihaati wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw subhanahu wa taala ci sang-sang mi Muhammad alayhi salaatu wasalaam saa su ñu ko defee seen émission taaru diine ji euh, saa su ne dañuy dem seet ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllu musique afro rap ci jàngeeg ci daara yi ñëpp tey nañ ñëw fii ci Firqat Tawfiq seet si leen seet si leen fii ci ginnaaw raay fa seen waxtaan na ci domaine yu nekk waaye ginnaaw loolu dañuy nuyu euh, kilifa diine ak kilifa aada yi waaye tamit di ñaan ñi nekk ci nga xamante caabi da leen féeti ginnaaw yàlla na yàlla def bañ ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ziar ñëpp di leen wàcce seen wàccu waaye leen ñaanal jàmm waaye tamit di ziar a ñoom tamit di leen wàcce seen wàccu waaye leen ñaanal jàmm damay fas yéene waxtaan waa Firqat Tawfiq toog ak wala ma toogal ki eh, mel ni Tidiane Diom ak eh, soxna Nafisatu ak seen ménager Aliou Thiam fas yéene waxtaan no ñum rek wara ma xamu ci jigéen ñaasi kan laa <laughs> njëkke <laughs> ah ma njëkke tijaan salaamaaleykum tijaan waaleykum assalam wa rahmatullah ma bàyyi la nga nuyu télé bokk téléspectateur waaw ñu ngi nuyu mbokk yi nga xamante ne ñu ngi seetaan ah, émission bi yëpp di la nuyu yooyu itam di nuyu caméraman bi nga àndal di leen ziyaara di ndokkeel ñëpp ci xew-xew yi passé di baalu àq ñëpp tabaarakallaahu di ñaan yàlla mottalil ñu di ñu fa yéene yëkkati ci kàddu ci jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salaamaaleykum soxna Nafisa waaw waaleykum salaam soxna Salima ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ah, di nuyu di ko teg ci sa nuyoo rek di nuyu kilifa diina yeeg ñëpp ak ñiy seetaan ñëpp di ñaan ñaanal ñëpp jàmm di ñaan itam ñu commencé ci bismillahi rahmaani rahim eggal ci alhamdulilahi rabbil alamin macha allah mi ngi noonu am na solo waaye tamit dañ leen di souhaiter bonne et heureuse parce que début 2019 ba léegi dafa guñ fi benn émission da leen di ñaanal jàmm bu baax a baax année bi yàlla nekk année naataange ya yàlla def ko année jàmm ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam élection yi ñu jublu yàlla def si jàmm tamit ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam damay fas yéene waxtaan ak euh, ki ngeen Cheikh euh, Tidiane Dione damaa bëgg a ak lan moo war Firqat Tawfekh waaw xam naa loolu tontu ci dana yomb Firqat yàllaa ngi dogal mu ngi nekk ci benn école bu ñëw tuddee Gamal Abdou Nasser fii ci ginnaaw raay yàllaa ngi dogal itam li taxoon ñu formé ko mooy comme école bi day jàngale di yar te jamono toll foo xam ne njaboot yi boo leen tënkul ji dara ñu dem tënki seen bopp ci leneen ñu ne nag la jàng bi ñuy jàngale ci wàllu diine mënul ànd ak suñuy njaboot ñu di leen gis ci leneen lu bokkul ak diine moo tax ñu ne léegi nañu taxawal orchestre bi bi ñu koy taxawalit it metti woon na ndax ñu ngi ko sos le 10 mars 1978 euh, ci lañu ko sos wax dëgg yàlla boobu ku ñuy wax xalifa si nekkoon na koo xamante ne ku daan yëngatu ci wàllu musique la ku mel ni ñoom Tidiane Mbodj ñoom nekkoon nañu di ci yëngatu orchestre bi foo ci ñooñu la jaar ci fulla ak jom ak taxawaay ba maîtriser ay instruments yi nga xamante ne ci lañu jaar di ci liggéey liggéey bi ñuy liggéey ndax bu njëkk filit ak benn tawarkal euh, tumbaa rek la yore woon di ci yëngatu jamono di dox nag dañu ah, ne comme yëf yi dañu fas yéene mu continuer nag nañu fexe lii nga xamante ne ku ko jàngul doo dem nañu fexe jàng ko ah tabaarakallaahu ci la ay njaboot am taxawaay wax dëgg yàlla taxawu musique bi ba mu agsi fii mu agsi tabaarakallaahu mais daal pour gàttal wax la ne la orchestre bi daal ñu ngi ko sos le 10 mars 1978 tabaarakallaahu kon mën na ñu wax ne 2019 bii ñu génn ci la am ñeent 2018 bii ñu génn ci la am tabaarakallaahu ñeent fukki at waaw tabaarakallah. lan ma war a ngeen tuddee ko firqat tawfiix. waaw xam naa mbir mu nekk da ngay seet la nga xam ne boo ko ko tuddee muy symbole nga tuddee ko ko parce que firqatu tawfiq bin najaaxi wassalaam te ñetti baat yooyu fu mu daje tabaarakallaahu du jur lu dul meññent boo xamante ne day dem kon bu ko defee kuy tuddee sa bopp da nga koy tudde loo xamante ne ku dégg tur wi dana xam ne tur wi du turu caaxaan ñu ko sos itam am na ñu yàlla defal dégg-dégg ba tax ñu tudde ko tur woowu fa tabarakallahu ngeen koy créé euh, firxa tawfiq ci wàllu musique afro arab yéen fi nekk kese comme groupe wala am na ñeneen ñoo la fekkoon waaw boobu afro arab mu ngi fi woon boobu am na yeneen euh, troupe yu fi nekk parce que lu jiitu loolu mën nañ ne sax xalaat bi mu ngi jógee boobu ñoom sëriñ Moustapha si ñoom ñoo ñëwoon fii ci Pikine joué si fi tabaarakallaahu responsable yi dem seetaan gis yëf yi ne waaw lu tax lii mënuñu koo jëmmal fii def ko ci façon boo xamante ne dana gën a yaatu fa tabaarakallaahu looloo tax ñu former orchestre bi parce que Serigne Moustapha boobu ñoom dañu amoon benn troupe arabe boo xamante ne dañ daan joué ay pièces arabe donc euh, di def way arab mais booba amuñu woon ay instrument ay flûte lañ doon jouer tumba maracas xeet yooyu daan ko booleeg pecc mu yëngatu donc bu ñu paree bu ñu defee tuuti way jo soog a jouer nag message bi nga xamante ne moom la ñu war a jàllale moo xam dañuy jouer le dernier jour du prophète Muhammad muy wafaatu rasoul wala euh, ghazwatu badrinil kubra yooyu ay message la yoo xam ne ñoom ñoom lañ doon jàllale biñ fi ñëwee nag ñu gis leen ñu ne lu tax lii mënuñu ko jëmmal fii ci école bi def ko liggey bo xamne bu gënee yaatu tabarakallah ñepp gis ci seen bop te biñ ko taxawale yi tabarakallah gis nañ njëriñam waaw. mo ñu ci soxna setu 40 ans de carrière yombul de. <laughs> dama gis daw yeneen ko no fété mais ci durant 40 ans yoy yeen djégo ngeen ngeen ci am ak yeen jafé jafé ngeen ci am. waaw 40 ans bi ah, boko xolé def nañ ci ay jéego def nañ ci itam ay euh, kii am solo euh, ndax itam euh, jafe na jafewul ndax it boo seetloo 40 ans wu firqa ni la ko tiijaan waxee fa mu tàmbalee ca ñooña ba fi muy egsi ay génération yi génération ñoo fi jàll waaw léegi nag biñ ci egsee même ñu ngi ko doon kii samee ba léegi ñoo ngi waaj pour defal ko benn feet waaw ndax boo léegi feetooguñ ko waaw ñoo ngi ci ñoo ngi ci mais ba léegi defaguñu sax feet bi waaw. Mm-hmm. wax nga sa biir wax nga ne am na ay génération génération jaal lu mel ne Seyda Bita Thiam fii la génnee okaat tamit dégg naa fii la génnee mais ñooñ ba ñuy génn yéen yéen a leen ber comme seen groupe bopp wala dañoo jékki-jékki ñoom ber seen groupe bopp. waaw euh, xam nga euh, li mag ñi di wax ni kër dafay yaatu yenn saa yi kër toll foo xam ne dafa yaatu su defee bu yaatoo rek ngeen yaatal. te itam dégg naa ñuy léebaat ni njàng njàngaan ni boo mokkalee ber sa daara waaw mun naa itam dañuy njàngaan si woon bi ñu mokkale rek daal di ber seen daara waaw waaye nag du du dara lu ñaaw. di xoolee autorisation bi waa Firxatun. Euh, am na ci ñoo xam ne nag euh, euh, ba ñuy ber ci seen ci ñoom la jóge seen xalaat la jóge du ñun ñoo leen wax ne kaay leen beru mais ñee xalaat bi ci ñoom la jóge waaw. Mhm. ci diiwaanu 40 album ngeen fi génne. waaw euh, ñoo ngi ci album yoo xam ne jaan na studio six album la waa daal nañu génne nag ci au niveau daayira bi ay album yoo xam ne euh, daayira bi ñoo ko doon ngeen ñuy wax cellule euh, technique daal nañu génneel ay album waaye nag ci diggante bi ñu kiyee ci kii bi studio. 6 album la toll te six album la toll ma wa clip wa clip yi ma xol ñoo ci six clip de waaw euh damay ñëwaat ci question bi da ngeen dog créer groupe fi xat tawfi ñaata personne ngeen est ce que yeen ñëpp fi nekkon wala par deux personnes ngeen trois personnes wa xamna bu man la dama na dama dabatal da nga dabatal wa ndax man biñuy sos groupe bi fekkuma fi. boobu maa ngi tiwaawoon. Mhm. nekk fa di jàng. Mhm. mën naa ne foofu laa tàmbalee lii sax di forontu ba yàlla dogal man sama mag moo fi nekkoon Mouhamad Diom ñoom ñoo ñoom ñoo nekkoon fii bi muy metti mën naa ne bi ñuy metti ñooñu ñoo nekkoon mhm. ñi nga xamante ne ñoo liggéey yëf yi ñàkk guñ ko ñàkk yàq nag moo tax tabaarakallaahu

am na ay génération yu fi jaar yoo xam ne fekkuma leen fi mais daal bi ma fi ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla ñi ma fi jot a fekk tabaarakallaahu ñu ngi def liggéey bu am solo waaw. ci biir ba ngeen ubbee ba ngeen créé ko kii bi firxa bi mooy nga ne 1900 lan. le 10 mars 1978. 78 instant yii musique afro arabe comme jamono yi concert yi ni muy ni muy amee ni di ko tegloo est ce que jamono yooyu musique afro arabe daan nañ ko consommer noonu. waa xam nga jamono bi ñu sosee firqa bi. mën nañ ne loxo sëriñ Moustapha moo gën a dugg ci musique bi ba tax mu agsi fi mu agsi parce que firqat tawfiq mën nañ ne ci gannaaw raay la yemoon bu génnee it génnam soriwul woon daana dem mais nag bi nga xamante ne ñoom def nañu benn invitation bu ñu leen invité woon RTS à l'époque sëriñ Moustapha ca la leen gis xàmmee ci Mouhamad Diom bi ma lay wax ne sama mag la après ci la def contact ak ñoom fas yéene liggéey ak orchestre bi donc euh, yu bëri waxtaane nañu ko wax dëgg yàlla ànd nañoo ñoom it fu bari ci àdduna bi fii ci biir réew mi kon wax dëgg yàlla année de la femme def nañ ci turne ak ñoom ak yeneen année yoo xamante ne liggéey nañu ak ñoom ba yàlla dogal fa tabaarakallaahu ñeneen ñi génn comme ni ko soxna na fi waxee mooy kër bu yaatoo fokk ñu yaatal waaw néew na firqa booy dem fi mu ne nii fii ci biir dakaar te doo fa fekk koo xamante ne jaar na fii lu mu bon bon ñu def ci moom benn liif mu génn dem liggéey kon mën nañu wax ne orchestre la boo xam ne day former ay formateur ndax dëgg yàlla mu ngi liggéey liggéey bu am solo boo xamante ne loolu nag sant yàlla la ndax ñi fi jóge ak ñi ñu fi bàyyi terewul ñi fi nekk itam ñu ngi liggéey liggéey bu am solo toujours ñuy xam ne firqa bi tànk yamu nekkoon dara wàññeekoo ci waaw. Euh, euh, soxna Nafi sax euh, sugu durant 40 yi 40 ans yi du ma ko génn bàyyeeguma ko dafa jafe ci ci fii xawoo gis mu liggéey ci yooyu yéen nañ ci doon consommer ay concert di génn soppee di leen woo pour ngeen tëgg ñoom ñu jox leen seen koom-koom boppam tëggalee concert wala. waaw amul nag fuñ ci demul durant 40 ans ay Gambek ay buudi buudi gànket fu ne dem nañ fa. waaw dëkk yi moom fu nekk dem nañ fa euh, ñoom itam ñoom ñoo doon soxlaal ñëw ci ñoon waaw organiser après ñu jox leen suñu kase ñoom ñu yónnee ñu oto su ko defee ñu dem juyeel leen bu ñu pare pare si yenn saa ñu def tournée boo xam ne dañuy am 10 jours ci àll bi bés bu nekk ci dëkk ñu dem ci dëkk bés bu nekk ñu dem ci dëkk ba fukki fan ñu doog a ñëw tabaski bu jotaan toujours noonu la ñuy def. métti na de. Ah, métti na dañ daan toog ci oto ba sa tànk yi métti sa tànk yi néew yi mais dañu xam ne mission la ñun mission la ñu yor mission mag ñi la ñu yor ba moo tax bi daal ñu yëg coono bi ndax am na ci loo xam ne boo ko xasee gëm rek ci sa xol coono bi doo ko yëg parce que da ngay yëg ne coono yiwu la waaw loolu. Mhm. jamono yooyu album ci la gën a jar. Mhm. jamono yooyu la gën a jar wala jamono yi. bu jamono yooyu nag la gënoon a jar parce que jamono yooyu pirate bi yàgg yi yëpp nit ñi amuloon xel mi. Ah, gis nga boo génnee boo génnee sa téeméeri kaset gàmmu yëpp mën na jeex. nga dolli jiwaat yeneen téeméer mu jeexaat jamono jooju moom ñun moom wax dëgg yàlla ah, booba suñuy kase daana jar lool waaw ay kees lañ daan yóbbu gàmmu te yëpp ay jeex macha allah ute nag jamono ji léegi moom waaw. <laughs> macha allah mais Tidiane man daan lu ma seetlu man jamono damay génn 40 ans ñëw ci instant yi jamono ñu toll ni euh, gis naa ne fan yi concert yi bari na groupe yaa ngi créé concert fans yaa ngi créé concert di woo seen artistes yi préféré yow et tout ma duma dugg ci concert ba fekk fa Firqat Tawfiq yéen da a am relation ak yeneen artistes yi wala nu mu demee xam nga am nañu relation ak euh, yeneen artistes waaye xam nga nit ki itam euh, munu ne diw day tëgg rek nga dem xam nga barki démb programme bi okaat doon tëgg ñun ñu nga fa woon demoon nañ donc soxna Binta organiser na fi programme CICES invité ñu ñu dem ca donc kon bañu ñu dem ci concert yi mais itam nit mooy toll foo xamante ne euh, liggéey boo ci nekkee doo dégg ne diwa ngay tëgg rek nga dem tey bàyyi say liggéey donc nit ki bu la wooyee nag invité la ci xew-xewam donc boo nekkee ci liggéey it fokk nga bàyyi liggéey ba pour dem ca waaw parce que firqat tawfiq ah wax dëgg yàlla ñëpp lañu amal jàmb amuñoo kenn benn xaar ma yàlla waaye nag mag itam a ah, dañuy wax ne fale nit ki yem nga jéem a faa yem sa bopp. Ah, man nag parce que Firqat Tawfi mooy ndeyu orchestre yi. mooy ndeyu orchestre yi xam nga ki la yëgal ki la ne la damay tëgg invité naa la loo mën a def da nga dem Ousmane Thior ñoom ñoo ñu invité keroog ñu dem fa Pinte invité nañu ñu dem bu ñu Abdou Aziz Diop bi tëgg. jël yëf yi cër bu mag bi mu jox soxna na fi donc ñu dem kon donc léegi bu fekkee ne yëgal nañ nit nag li mu yëg la mën a teew mais loo yëgul teew ca day xaw a metti bu ko defee loolu moo tax souvent léeg-léeg programme am ñu gis fa yeneen artistes yi te duñ ñu fa gis fekk na boobu ñun dañu yëgul nit nag lu mu yëgul mënu caa teew mais luñ ñu yëgal wax dëgg yàlla danañ ca def taxawaay ba ñu ba ñu war a def incha allah waaw. Ah. Eh, soxna na fi yéen ngi prêt pour def yeneen programme si jamono yi wala parce que 2018 moom musique afro rap kii na de. waaw waaw ah ñoo ngi ci ñoo ngi ci de am na nañu ah. lu ñuy pare am ñu ñuy waaj. Mhm. ñu bëri tamit ñoo ngi waaj. Mhm. waaye nag euh, comme euh, confirmé guñu. Mhm. Euh, duñ ko mën a wax. bàyyi rek ñu bàyyi noonu waaye nag ñoo ngi waaj moom te jamono ji moom musique arabe baa ngi dox fan tabarakallah nga gisee musique afro arabe. jamono yi comme sa album mu ñëk belajar. Mhm. tay say mi ngi dox bu baax nit ñang koy xam mhm. lo ko gisé légui wa nit ñi nit ñang koy xam mu ngi dox mhm. nak euh, album yi pirate bi mo ñu sonal ah, xam nga da ngay légui pour nga gis artiste yi sa sawaratu ñoo génné album li tax parce que dang koy génné ndeysaan euh, kenn am ko pass ko kee kee pass ko kee kee pass ko ñu passanté ko di ci jaar du bari légui yow da ngay mujjé jël sa ki def ko meuble ci sa biir saal wala sa biir néeg xam nga yooyu tamit du du du sawarloo liggéeykat te da ciy def ay millions da nga ciy sonn mais nag niñ koy consommer moo dul baax looloo tax nag boo seetloo ñu bëri sawaratuñu pour génnee album moo tax ma ne la bu njëkk la gënoon ci ñun waaw waaye léegi nag la ko nit ñi gën di consommer léegi lañ ko gën di euh, déglu léegi lañ ko gën a bëgg public bi yaatu na mais nag bu ñu génnee suñu album niñ koy consommer moo baaxul voilà. Tidiane 2018 bi génne wala ci album daa mel single ngeen fi génne de. waaw single la génne waaye nag euh, ñu ngi ci yeneen liggéey yoo xamante ne incha allah. Mm. mën naa am buñ ca ànd ak jàmm. Mm. danañoo xam ndax firqatu tawfiq <laughs> single rek la génne wala génnewul single. kon yow am nga looy waaj leneen lu dul loolu. waaw waaw ah. que itam xam nga liggéey. Mm-hmm. boo koy def. Mm-hmm. da ngay làqatu di liggéey ba xëy nit ñi gis clip bii nga gis nii mhm. bi ñu koy liggéey nit ñi dañu xëy gis ko donc loolu mooy liggéey mhm. moo tax fi mu ne nii li ñuy waajal ci mhm. kàttanu yàlla incha allahu taala bu sottee ñëpp xam ne firqat tawfiq fëlaat na <laughs> waaw ci gis ngeen nu ñu waxtaanee ki ñu naan euh, Tidiane Diom ak soxna Nafisatu ci durant 40 ans de carrière ak la moo tax Firqat Tawfiq ak kañ la commencé gis ne mu mel ni leeral na leen koo mu leer naa ñi macha allah waaye tam mu mel na ñoom am na lu ñu surprise bu ñu defaloon ci fin wu bi ci décembre bi ci fin wu mu nekk surprise bu am solo moo lekk loo xamante dañ koo wàcc ba defal ko sax programme ñu defaloon ko fii ginnaaw raay programme damay fas yéene dem déplacé wu dem toog a Khalifa Thiam waxtaan moom la tànk bàlla nga may ma clip bi léegi-léegi incha allahu rabbi لقد فقدت الأمة الإسلامية والشعب السنغالي معا قرما عظيما يوم فقدت الفيلسوف العملاق السيد الشيخ أحمد التجانيسي المكتوم الذي بكت عليه السماوات والأرض كما بكى عليه العلم والحكمة فسلام عليه حتى يرضى إنا لله وإنا إليه راجعون tiis ak naqar la umma islamique bi am tey ji ginnaaw ba ñu yëgee génnub àdduna ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum الصحب он утихомирит. Aïcha mi ngi mel ni maa ngi euh, mi ngi mu nekk hommage à sunu maam Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala mu nekk ni macha allah clip boo xamante ñëpp apprécié nañ ko mu nekk hommage boo xamante ni bu bu triste waaye tamit na lool macha allah damay toog ak ki ñu naan Aliou Thiam ak euh, ki ñu naan Khalifa Thiam damaa xam fa commencé encore tamit <laughs> ah xam nga sunu ménagère Aliou ziar naa la. soxna ñu ngi delloo ziar di nuyu. ñi nga xam ñoom ñooy seetaan télévision ñëpp rawat nañ suivre émission bi wax saisir occasion aussi pour wax toujours ñun suñu yitte mooy ñi suivre ak exactement li allier li ñuy def di neex aussi muy jàngale di euh, maa gis yaay ménagère waa Fexal Tawfekh euh, depuis kañ nga fi nekk ménager bon concrètement depuis 2001 2000 2001 yàgguma fi bien que nag Firqatu Tawfekh 78 ba léegi man maa ngi fi bi ñu koy créé maa ngi fi doon boobu élève la maa ngi nekkoon CEM bu ñuy wax CS Plateau yàlla dogal foofu nekkoon école des arts moo nekkoon siège kon musique dafa teel a bokk ci suñuy mbir Modou Diom mi Tidiane doon wax léegi muy frère am maak moom a dëkkoon woy bi moom moom la doon dëkkee moom saa yu ñëw fii ñooy ànd bu ma wàccee 18 heures daf ma doon fekk kër ga bu Modou joom di ñëw ma ñëw seetaan sa répétition donc virus bi yàgg na peut-être que 2001 la yàlla boole yàlla dogal bokk liggéey boobu ba léegi nag tawarakal la on a tout fait ensemble. durant 2001 et 2019 façon de faire des choses. am. des <laughs> énormément bi ci euh, da nga da production du le genre afro-arabe. amuñu woon euh, habitude di defar euh, ay album dans les règles de l'art maintenant Fexe fi ñoom ñoo ko njëkk a def li ko doon def mooy on avait un certain moon marché boo xam ne dañu miinoon comme ni ñu ko waxee sànq waa cellule technique doon defar leen di am na foo xam ne boo fu bëggee sa produit yegg fa i faut nga jaarale ko fi mu war a jaar jafe-jafe production yi ndax yow yaay produire sa bopp. yaay wuti ay moyens bo paree comme ni ko soxna sox yaay jaay kon yaay créer yaay produire yaay distribuer donc le musicien nek élève en plus parce que ni ci pas élève la dañuy am plusieurs fonctions le ko sen jàng wala ni day musicien waaye jàngalekat la donc da ngay gis ne da ngay def lu bari exigence dafa bari te résultat bi souvent de tol non voilà lolu moy aspect production ci support leneen li nekk production ci spectacle jafe ba produire spectacle yu am dimension parce que genre musical bu jaadu ngay def production yu ndaw yi la programme production par rapport ak euh, statut ci ni beaucoup de moyens te producteur bu ci niveau donc euh, autoproduction boobu day laaj beaucoup de moyens day laaj tam un travail planning boo xamante ni compliqué loolu bokk na ci jafe-jafe yi li des nag mooy constance par rapport ak artiste seen bopp parce ngay liggéey ci cadre boo xam ne pas professionnel mënoo fay nit ñi ay salaire demande bi dafay gën di exigeante nit ñi dañu gën a bëgg genre di gën a laaj qualité da ngay bëgg nit ki bu waree defar lu am qualité nga di ko astreindre di ko tënk ci ay rythme de travail répétition une série, bo xamni mëno ko sat ki ba mu jeex parce que c'est plus du volontariat que de la profession yooyu bokk na ci ci le management fay jafé sax bi engagé yenn programme yoo xam dafay am lu mu laaj rythme de travail mais mëno ko am ci biir kon yenn programme bi dang koy percevoir mais do ko mën jël ba mu jeex benen bi moy tournée yi tournée yi dañ ko don def ça prenait beaucoup de temps une semaine dix jours presque mu jege tax deux semaines mu nekk temps boo xam ne élèves yi dañu war a absenté ñii bàyyi seen kër bon loolu tam gis nañ ni parfois ñi war a organiser tam yenn charge yi dafay xaw diis ci ñoom donc mel ñun ñi defaloon ko suñu bopp mun naa moo doon xaw di gën a yomb gérer pour que mu am retombé yenn yi daal donc foog naa ni bokk na ci li nga xamante ni ci sama gis-gis bu gàtt bu ramassé yu gën a compliqué ci wàllu gestion bon maintenant yooyu yëpp dañ ko comme ay défi jamono bekk li muy andi défi bi nga xamante ni quelque part musique bi mu dem peut-être ñu ci bëri amuñ ci approche beaucoup bokkuñ niñ ciy duggee mooy le média change dafay gën a dem ci euh, euh, di réseaux sociaux de sorte que la musique dafa war a ànd ak maintenant loolu tam liggéey la boo xam ne il faut ngay concevoir ay événement wala ay programme wala ay euh, canaux de consommation yi nga xam ne nit ñi sans yegsi ci yow mën nañ jot ci sa produit te produit boobu aussi tooñ bi ñu ci def mu am lu mën a ñëwaat ci yow hmm? yooyu bokk na ci jafe yi nga xam ne ba léegi ñu ngi xool naka la def ba mën ko résoudre voilà. Hmm. damay ñëw ci xalifa fa seen waxtaanam moom xalifa moom ci wàllu clip bi laa xam ne mel ni yow claviste nga en même temps de. Hmm, waaw. naa ba ma nuyoo téléspectateur waaw di ko teg ci nuyu Alioune rek ñu bañ a guddal di rafetlu émission bi di rafetlu invitation bi aussi voilà. Euh, dama fas yéene waxtaan ak yow ci nga xamante ne mooy clip bi avant tout lan moo tax ngeen bàyyi ba décembre bi ci ci kañ ngeen def seen programme bi sax. waaw le 29 décembre. waaw lan moo tax ngeen def hommage à Mame Cheikh ngeen bàyyi ba le 29 décembre doog ko génne. voilà parce que vidéo bi yaakaar naa ne euh, liggéeyoon nañ ko côté gàmmu bi mhm. après on s'est rendu compte que décembre bi mooy daje ak gane àdduna Serigne Cheikh muy anniversaire am après ñu am patience su woon ko ba ci bës boobu parce que il fallait euh, ñu dugal ko ci ci ci ci cadre ba nga xam ne euh, du nekk seulement vidéo boo génnee rek mais voilà def nañ ci journée boo xam ne dañ ko def journée hommage euh, indi si nit oustaz bo xamne dafa am causerie mo wara waxtan si dundu ak ay œuvre Serigne Cheikh mu melni comme jangale la rek ñu yaatal ko jox ko aussi dimension bi nga xamne mom la mom lañ soxla won lolu tax ñu am patience su bàyyi ba le 29 wi ñu ñu doog ko ci euh, programme bu ngeen defoon dafa melni clip bi da ngeen ko da ngeen tek son ba pare di firi li nga xamante mo ngeen do wax ci clip bi waaw lolu mom yaakaar naa ne du du sax ci clip bi su société clip yi ñu ñuy def euh, yi si yi si yim mënoon nekk yëpp yi ñu amoon texte yi xëy na yëpp dañ koy souvent dañ koy def ak sous-titrage mooy aspect jàngale bi ma lay wax rek euh, texte bi comme dañuy def musique ba nga xam ne langue bi déjà euh, ñu ëpp ci ñuy déglu comprendre ñu langue bi déjà loolu noonu day nekk partie boo xam ne dina toucher beneen beneen beneen beneen public daal bii dañ ko xëy dañ ko ci firndeel hmm, fexe ba amaat texte bi def traduction bi waaw clip avant ngeen ko génne est ce que single bi siiwal ngeen wala ngeen a boole clip beeg si son beeg yëpp ngeen génne ko waaw parce que waaw dañ boole yëpp génne ko parce que son bi ak vidéo bi ñoo ànd quoi waaw son bi ak vidéo bi ñoo ànd ngeen jéego ngeen ci dox parce que clip bi lancé wu na gars yi bëgg nañ ko apprécier nañ ko te clip bi nice na trop yéen jéego ça veut dire xam nga clip bi clip musique afro xam nga day yomb mais seen clip moom macha allah. d' accord waaw loolu moom euh, yaakaar naa ku xool série vidéo yi ñu def yëpp euh, am na am na exigence boo xam ne euh, ak apport boo xam ne tey ñun indi nañ ko si côté boobu ça veut dire que toujours dañ mos di veiller ak genre musique bi ñuy def mm, ñuy sonn ba ba muy am qualité parce que souvent société ñi daan def musique pour diine yi li ci ëpp comme li ñuy wax rek dañ daan xaw a gannaawel seen seen bopp. du ñu sonn ci yenn yi xëy na nit ñi tamit ni ngay jàppee sa bopp rek dañ lay jàppee loolu noonu ñun dañu ñëw euh, mun naa ne révolutionné ko parce que vidéo yi ñu def yëpp xëy na su doon euh, comme vidéo yi ñu gis tout temps rek yaakaar naa ne chaque deux jours nit mun na def benn vidéo parce que wut sa caméra ñëw rek def clip yomb na mais tey nga exiger sa bopp déjà def production boo xam ne qualité la nga fexe aussi wutal ko vidéo boo xam ne qualité la ba tey euh, média yëpp wala télé yëpp nga mën fa jàll ci par respect ñu nga xam ne ñu xam ne lii qualité la ñu teg ko pas parce que xam nañ la wala loolu noonu moo waral clip yi ñuy def yëpp xëy na dem nañ ci ba yegg foo xam ne mënatuñ ci sax def lu lu lu lu wàcc baar bi waaw parce que aj nañ déjà kii bi fa nga xam ne mënatuñu def lu lu lu waa nekk di nga fa dem def benn tourner fa clip bi lepp pour bëgg clip rafet té bu ñëk ba nga naan def clip musique afro arab da nga naan tok sa salle rek ñu di la fond vert sa ginnaw comprendre nga mais légui gis naan yeneen ci dox parce que kéro ma ngi ci waxtaan ak ñu naan Mamor firqatan xalafiya ma ne ko firqat tawfiq sen ñaari clip yi sha allah mais lolu bi di ngeen ci am ay tolof tolof wala wala sen moyen bop ngeen di wala ñu démé non wa d'abord xalaat la rek parce que bu ci bu ci nek ak limu laaj je pense que amna yo xamné ne laaj nga dem ci ci décor am na yoo xam ne aussi voilà comme bi ñu mujjee def ni yaakaar naa ci benn place lañ ko tourné tourné wuñ ko ci ay décor yu bëri parce que loolu lañu soxla woon euh, beneen bi sallu yaa ahlal kamal gis ne bi ko tourné il a fallu ñu dem ci décor boo xam ne dina méngoo tey ak xasida bi li muy li muy muy wax xanaa côté boobu tamit aspect la boo xam ne ñun euh, dañ ciy xalaat bu baax avant bu si nekk rek xëy na ak thème bi vidéo bi di abordé bu si nekk dañuy jéem a méngale image bi ak thème boobu noonu voilà. waaw sama dernière question mooy xam ngeen clip bi moom méngale ngeen image bi euh, def mel ni am kuy jooy <laughs> loolu moo ko waral. waaw parce que euh, déjà titre bi. xuzni ñu ko ci Carrefour bi. waaw mhm. ah, déjà titre bi xuzni mooy sama naqar kii di naqar wax ay larmes wax xol bu naqar yi wax jooy. Euh, comme hommage à def di joy ko xamné daf aussi euh, rongogn bi ki la rek euh, peut-être une sax métaphore la buy woné xeyna bi pour woné dayo ki fi mais juste des la lo xamné day ak ak ak comme titre bi nim ko quoi sama heure musique afro arabe légui musique bi mu ngi mais man man dama nekk nit koo xam ne perfectionniste la waaw loolu sama sama nattu la xëy na li nga xam ne du jeex uh-huh. soo si amee tuuti jarul nga koy naw xëy na li muy daw dëgg la mu ngi mu ngi am ay jéego mais tey suñu sañoon mu jéggi fii mu ëpp ko moo tax xëy na apport buñ ci indi rek dañ koy xeep jéem a ma man dama naan li des mu ëpp fuuf li ñu li ñu am. waaw ñu ngi sant yàlla nag parce que nit ñi ñu ngi koy commencé découvrir mu ngi dox mu ngi dem tuuti tuuti mais liñ naan Euh, bëtu bëtu tan jéggi na mbeddu melentaan <laughs> bàcc seeraas moo ko waxoon sama mbër mi <laughs> voilà loolu la voilà ñu ngi ñaan daal après mu gën a mu gën a dox mu ngi dox mais voilà am nañ ci yeneen yéene xëy na ko bëgg yegg fiñ liñ ci bëgg a def yëpp euh, weesu na fiñ ci toll nii kon luñ ci def rek dañ koy xeeb di tàggu ñëpp di kontaan aussi ci euh, seen kii bi di di ñaan yalla mu gëna a di wax ñëpp aussi que voilà vidéo bi disponible euh, youtube euh, suñu compte youtube ak suñu compte facebook di jox ñëpp rendez-vous inshallah prochainement ci yenen yu voilà ko jërëjëf Nahia yow paré nga pour engager programme wala sa programme fi xabi nga xaar euh, engager programme bu ñu proposer wala programme bo xam à tout moment Feexatoo Fexe yi naka jekk mm, dafa ouvert à à des propositions fi mu ne nii moom eh, gars yi boo nee jóg leen rek ñu jóg <laughs> incha allah comme niñ ko waxee aussi ñu ngi mébét yoo xam ni ñoo koy concevoir ñoo koy doxal te dañu bëgg aussi mu nekk tam comme ni ko xalifa waxee toujours junj boo xam ni. fu ñu bëri mën a engagé wu la suba mu yaatal ko. incha allah incha allah. Mhm. bàyyi nga tàgguwaale téléspectateur euh, El Vision Médias. voilà xam naa di bëgg ci instant bi ñu am ak ñoom rek. Mhm. di leen di tagu ñaan yàlla ñu gisewaat te saa yu ñu gisewaatee euh, tabaarakallaa ku ne gën a bëgg ci sa morom yàlla mottali ñu mottali leen di leen di remercier waale macha allah ci tànk yi ak méthode bi yàlla na di dolli tawfiq El ci kanam. ay ayca euh, soxna Nafisa dama lay bàyyi nga yuuxul ma tuuti rek yàgg Tidiane Diop yéen loolu ba loolu ngeen may tàggoo incha allah bala nga maa yu xaama tàggoo man tey na boo leen gisee def naa nii tey baas sama jabaru Ndiaye moo fi jaar madame Ndiaye chéri Lamine Ndiaye euh, yaay Mouhamed mi ngi noonu. te moo jaar fii ma koy ñaanal mu tamit yal na ko yàlla jàppale ci sëyam boobu ci barke yonent alayhi salaatu wasalaam waaye tamit di ñaanal ñëpp di leen na jàmm sax yi sax ci Sénégal jàmm gën jamaa yàlla na jàmm am ma abdal da baax mal naa fi naan boo yore sa da na gaal gi mucc bu gi muccee ëmb gi mucc ñu nekk gi mucc te gi bu amee jàmm ñëpp ñooy bokk jàmm ji kon yàlla na jàmm saa su nii lay demee seen émission taaw diine ji tey ñu ànd waa tawféex damay dama leen jox di daje incha allah rabbi ci beneen émission ak ñeneen daanaan ci kàttanu yàlla incha allah waaxidu daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sama caméraman la àndaloon Balla ma koy ñaanal jàmm moom tamit ay cax damay bàyyi Seyda ngeen tëjal ma rek incha allah صدره كنز المعارف والمعاني من لطائف جاهه لله سراج الأولياء دمني فيك اتصال يا محمد يا حبيبي يا محمد